auzu billah bisimila ina waliyila asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna waaw kay alxeyri bi jib na Marie-Louise Sissoko est devenue madame Ndiaye chéri waa ju baax merci beaucoup pour vos vœux yàlla leen yàlla fay ay yiw félicitations félicitations tubaarkalla macha allah law la Marie-Louise chéri waa ju baax ñaaral xaritu jëkkëram ba nga duggee ci waaju baax nga xam ne tabarkalla macha allah xel dal na xel dalati na léppay baax yàlla na leen suñu borom defal jàmm seen sëy bi barkel yàlla musal leen ci ndog ak ndogaan ak rappatal ak këppatal ak lépp luy fële sama waa ji Marie-Louise jéegu 52 état puissance mondiale borom Amerika séri waaju baax mu baax mi. waaw waaju baax ak Marie-Louise ñu ngi ñaan seen sëy bi yàlla ko yàlla barkel lépp lu ko nar yàq yàlla na yàqu macha allah defal leen sutura Marie Louise ca états waaye waa ju baax fii ci Sénégal xam nga nii bu ngeen sëy war ngeen sëy bu ngeen sëy war ngeen war ngeen sëy macha allah rabbi nedda ko bandum dama ni xar bu daggee ay morom xaram la jëm waaye noble bu daggee ci ay morom noble la jëm te Marie Louise noble nga waaye waa ju baax noble la. way way way damaa wax Marie Louise ndeysaan ay waay heure ménage heure ménage de Marie Louise a waa ju baax ndeysaan ay waay sëy bi yàlla takk na aywaay sëy bi jóge na aras jaar na première asamaan deuxième asamaan troisième asamaan ba septième asamaan sëy bi takk naan ko diggante waaju baax ak ki nga xamante ne mooy Marie Louise yàlla na sëy bi barkeel dog leen si yoon bi bu leen dara fakastal bu leen dara yàkkal bu leen dara xeeñ bu dara ñëw pour konal leen